Kempten TV. salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi ñëwaat nii ci suñu émission bi religion bi ma wax ci chaîne chaîne Kempten TV tey nag ñuy waxtaanee lu lëmbee dëkk bi ndaxte ñu bari ñu ngi ci wax te ñëpp la concerné ndax loolu tey jii moom lañuy ñuy woowee fellation. ñu ci laajte nak ay nit ñu bari ay borom diine yu bari waye nak ba tay da dafa melni wax ji déssena naa leer mu tax tey nag ñu décidé ak mère Kémane mi tok ñu waxtaan si aussi mu wax ñu mom lan la ci l'islam wax aussi ban xam-xam aussi mom la ci am mère Kémane ñu ngi lay bàyyi nga présenté wul bismillahi audu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli رب لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم ملي ديل سوا دي نيو دي جاجفل سونو بوك انترنتي دي واخ شهر رمضان مبارك ملي جيم تي فين بي يعني يالا ماي ديغ اك توك ماي ني نانغو سونو جامو يالا موسال ني بسمي بسم الله الرحمن الرحيم اه ديسكوسيون يبري امنا تي واي مان في ماي جار با تك li may wax ci benn émission laa ko seetaanoon ci Aljazeera ñuy wax émission bu tudd ak diin wala xayaa maanaam diine ak la vie diine ak sunu dund bi muy mufti bu mag journaliste bi laaj ko ne ko est-ce que fellation lu yàlla araamal la wala lu ñu daganal la ci lislaam mufti bi ne ko gisuma fenn ci alxuraan fu ñu def loolu fuñ ko fu ko yàlla waxee waaye doomu aadama mooy am euh, lu muy seexloo waaw lu muy seexlu di tiim awra jëkkëram wala jabaram di ko di di def di def fellation nit ki moom mooy am boobu boobu retenu daal boobu retenu ak boobu xel mu nanguwul daal mhm. mais journaliste bi insisté ne ko mais bu fekkee ni jigéen ñi ñoo koy demandé ñu defal leen ko ñoo koy demandé mu ne ko araam koo xam ne yaa ngi suivre chaîne Jazeera intellectuel yi ak nit ñi mun a suivre information rek nekk na nga dem ci chaîne Al Jazeera nga dugg fa nga xool émission bi tudd ak diin wal xayaa loolu ça fait quelques années man seetaan naa ko ci Al Jazeera donc ma xam ne mun nañ jàpp ne du lu araam. léegi yow wax ji jeex na. léegi yow nag ci sa xam-xamu ko. est-ce ngaa gis kenn ci alxuraan. Hmm. fu yàlla ne loolu tere na ko. déedéet amul amul ndax yàlla am na yoo xam ne dañ koy dafay junj rek. doomu aadama yi wala borom xam-xam yi ñooy def ay gëstu pour xool loolu lu mun a nekk wala munul nekk mais lii nag domaine la boo xam ne privé te comme waxuñu ci benn tamit mujtahid man gisuma ko mu wax ne loolu araam na amul benn mufti moo araam mufti bii ma lay bu siiw la ci dëkku arab te ci Al Jazeera laa suivre émission boobu mhm. donc sama xam-xam bopp ma ak li ma xam ci alxuraan gisuma gis fenn fu ko yàlla tere waaw kon nag ñu terewul rek ah. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw léegi nag yow tey jii ñu ne góor ñi dañ koy laajte ñu ne jigéen ñi dañ koy laajte. Mm-hmm. est-ce que tey jii mënuñu ne rek nag lu gémmañ goo xam ne dañ ciy tudd yàlla est loolu war nañ ko ci war a mën a def. waaw nit ki loolu lay xalaat wax dëgg yàlla boo eggee ci yenn ji yi nga xam ne da ngay jël sa course di tudd ay yàlla da nga naan tudd yàlla boobu ngay tudd sa gémmañ gi wax dëgg yàlla dégg naa Iran la wax ko war nga koo mën bañ def ko war nga koo mën a def Moussa Alioune sàll yàlla yàlla yokk xam-xamam muy suma nattangoo bu ma naw moom dégg naa nit laaj ko ci émission Al Bidaaya directement ku góor laaj ko ko dafa tiit oustaz Alioune bay sax moo mujj tontu mu ne ko rafeerul ci Iran Ndao tellement ne bañ na cee wax waaye man li ma ci xam mooy l'islam aayewu ko bu dee nit ki amul boobu seexlu pour def loolu. waaye bu dee amul boobu seexlu amul dara lu ci ne. waaye léegi. waaw gis nañ fi góor ñi léegi dañ ne góor doo ko defalul li mu bëgg de dana wuti ji ko feneen en tant que jigéen buy sëy fekki sa jëkkër ràcc na la ko même fekki bëggoo ko est-ce que amul obligation def ko. loolu maanaam xaw nañ ci am wax ndax bokkul ak beneen bi nga xam ne moom la ñuy def bi ñu araamal tifaaxan mooy. di ànd ak sa jabar ci ginnaaw ndax yëfu góor jigéen ya ko doon def ca ahlu loot ñoo doon def loolu loolu la yàlla yonent bi sallallahu alayhi ak diine yi ak kilifa yi ak boroom xam mufti yi yépp nañ képp góor bu demandé loolu sa jabar am na droit tas ndax moom ka koy def ak ka koy defal yépp ñoom ñaar ñëpp lañ jëm hmm. waaw jigéen ji ko nangu ak góor ka koy def parce que góor warul nangu daan jabaram foofu laay def te yàlla ne ko fañ la war a def mooy fiñ la digal mooy ci awra jigéen fa la yem mais du ci ginnaaw loolu yëfu góor jigéen la ku ko def it yow yàq koy def yëpp boo leen ko tuubul bala ngeen di dee safara ngeen jëm. amul sax wax kon nag euh, ci gàttal affaire fellation tamit loolu la ci nit ki di di di xool mooy ndax nit ki am na seexlu boobu bu dee amul seexlu boobu. xalaatu ci parce que affaire turu yalla bi ngay tudd bobu benen domaine la parce que nit jaamu na yàlla di def leneen lu bon waye li nit moo koy mën accepter bopam ndax mën nako ko def wala mun def à ses propres responsabilités waaw. waaye mais lu yalla ne aram na dit kenn dégg ko ci loolu aram waye waaye léegi merke ma moom la bëgg xam. waaw est ce que jigen la la wax bu jëkëram ne mu defal ko fekkee mom bu ko def te xelam may ko ko. parce que mhm. elle est obligée de le faire. ah loolu waxtaan la rek bu dee kenn elle ne veut pas il jigéen kenn waru ko forcer mu def loo xam ne bugg ko waaw c'est pas forcé tubaab yi ci boppam soo demandé ndax sa jabar sax ngeen seq mu bañ nga forcer ko viol la te l'islam waxul loolu kenn daal wax ko kenn wax kenn loo mun a bëgg def sa jabar lu dul loolu moom d'accordu ceeg yow waaw am na droit bañ ok donc waaw kon dal yaakaar naan ci gàttal mom waxtan gi mom tay tontu nga tontu gi ne nga ne ci diine sam aramul waye peut-être nit ki mooy am ben retenu fekke fekke tay ji xelam may ko ko mu bañ ko def mais dal ci gàttam dal ci diine mm-hmm. ci ci sa xam-xam mm-hmm. islam terewul fellation moo tax ñi ngi remercier mbokk internet tay nak lool mo doon suñu émission lool tem, doon suñu thème ci lool lañ bëggoon wax légui nak ñu euh, nañ ñëwaat ci yeneen thème inshallah motax ñu nit ñi ay thème ñu nit dinañ ko traiter inshallah maire Kayman tontu ci tontu fekkee am na incha allah même problème léegi nag maire Kayman tàggatoo. ok incha yàlla dem ñu waneeti jàmm ak salaam. Mhm. salaamaaleykum wa rahmatullah. kon nag ba beneen yoon ci seen chaîne Kemtan TV merci bu leen fàtte nag abonné wu waaye it euh, mettre leen benn j'aime bu leen neexee partager leen surtout loolu lañ gën a soxla ngir ñëpp mën a jot ci xam-xam bi jërëjëf ba beneen yoon incha allah merci beaucoup. Kempten TV.